liggéey ba am te kenn jàppalewu leen donc dañoo gëm seen bopp boo tax ñu toll fi ñu toll donc ñooñu bu ñuy def seen rencontre nekk ay xale nekk ay ndaw ñoo xam ne yàgg naa ànd ak ñoom ki terrain tey moo leen gisee ñu formé lu mel nii def ma parrain daaw dama yaakaaroon ne ci rek lay yem ren ñu waxaat ma yow yaay parrain toujours donc kon loolu dafa nekk lu am solo donc boo bu ñëwee fii ak thème bi ma leen fekk ñuy wax dama leen di wax li nga xam ne moom laa ci xalaat parce que xëy na mi ngi am si dëkk bi te peut-être mosuma ci intervenir mosuma ci wax mais ñoom permettre nañ ma ma wax si wax ci sama xalaat ndax dëkk bi dama wax ni que li nga xam ne moo koy jëkk a développé mooy d'abord nit ñi am xel xol bu yaatu am xolu dimbalante loolu mooy jëkk d'abord si réew mi il faut que nit ñi jàpp ni kenn ku ci nekk war ngaa mun a dimbali sa moroom dëkk bi du concours ndimbal entre ñun du tax nit ki wàññeeku du tax nit ki dellu ginnaaw maa wax leen nag léegi ne leen comme loolu ngeen bëgg a faj boo leen koy faj il faut ñu jaar ci ay canevas canevas bi ci jëkk a jot comme ñoom ay xale lañu xale yi ni ñu gëm seen bopp ba pare parce que mënoo ja ànd ak koo xam ni moom li ngay defal bu fekkee mot na day yaakaar war a génn réew mi pour réussir parce que ñun fii dañu toog réussir kon yaakaar nañu keneen ku fi toogee war nga mën a réussir donc loolu moo tax ñu wax xale yi nañu toog d'abord nañu gëm seen bopp ba pare bu loolu weesoo ñu wax ne que volonté bi pour wane ne que bëgg nañu affaire bi faju ma ne leen yéen entreprise yi nga xam ne yéen a bokk renes yëpp kenn ku ci nekk na sponsorisé ñaari xale jël ñaari xale yoo xam ne chômeur lañu xamuñu dara munuñu dara nga sponsorisé leen pour que ñu réussir dans la vie man noonu lay def man damay sponsorisé nit damay gis nit ku am projet ma xam ne projet bi yaa ko moom xam ni ngay def ma accompagner la ci projet bi loolu mooy sponsorisé ma sponsorisé la ba nga réussir ñi ma ko defal am na ci ñoo xam ne tey ji ñoo mopp xaalis man te maa leen teg ci yoon pour ñu liggéey mais heure bi ma wax ak yéen nii ñoo mopp alal fuuf mais fierté la pour man parce que ànd naa ñoom encadré leen ba ñu réussir donc xale yi loolu laa bëgg ñu defal ko xale yi ni gëm sa bopp bi ne mi day tax ni que bul bañ benn métier métier bu ñu la jox rek war nga ko mën a liggéey loolu moo tax ma joxe exemple xale yi bale nekk ci mbedd bi ndax bañ koy def ay 1980 86 87 bale si mbedd bi nit ñi dañ daan làqatu ci man la làqatu bi jeexee man maa daan jiite xale yi sol sama yére ànd ak ñoom di bale nit ñi xam ni ko bale Dakar yëpp ku ci mës di def set setal man ngay woo man maa daan wër di dem quartier par quartier di def set setal boo xam ne kenn sant ma dama ñëw ci quartier bi rek woo xale ci koñ bi mujj gi xale yi di ma woo pour ma ñëw di jàppale ci seen donc loolu moo tax ma ne métier la boo xam ni dañ ko formaté ba xëy si ba métier bi baax xale yi nekk si donc loolu dafa nekk lu am solo bi ci des mooy ñu xam ne que ñun ñëpp sénégalais lañ te xale yi fi ñu jëm amul njariñ parce que la fa nekk ña fa nekk duñ ko nettali ñi fi nekk dama ne la fa nekk ña fa nekk duñ ko nettali ña ñi fi nekk te c'est très important li may wax parce que kenn ku nekk la ngay dund foofu doo ko nettali sa yaay doo ko nettali sa waa kër doo ko nettali kenn da am gàcce sax pour ñoom ñu xam ca lan nga nekkoon donc loolu jar ko te xale yi bu ñu teetee fii dañ mën a réussir donc damay remercier waa parce que xam naa ni que engagement lañ jël moo tax man leen engagement bi ngeen jël man comme ngeen man comme man maay seen parrain loolu ngeen engagement bi ngeen jël jàppale ni ànd naa ceeg yéen te fépp foo leen di yem maak yéen ñooy àndandoo dem doxe ji ko parce que nag représentant du peuple la cest à la kon am naa mun a am naa foo xam ne sama loxo mën na fa àgg boo xam ne war na leen mun a dimbali ñoom aussi ci liggéey bi loolu aussi ñu ngi leen ciy sant bu baax dina wax ne bi nangu nañ ko kontaan nañ ci war nekk na boo xam ni man social rek laay dox man sama àddina yëpp ci social laa koy dox kon loolu aussi day nekk loo xam ne daf may neex si ma gis ñoo xam ne social dafa leen intéressé ma ñu war a ànd pour liggéey pour Sénégal